tubaar fakàlla macha allah maa ngi gërëm 10 millions di ko sant di ko ñaanal nag gudd fan ak wér gu yaram yàlla bu masori sori million mi yàlla na jàmmam yàgg ci barke Viviane Chidid yàlla na 10 millions yàgg ak man barke borom Touba ay 10 millions ci 10 millions yaay nit ku baax yaa bëri valeur <laughs> yaa am solo tax nga ñu bari di jaay seen ngor ñii di sàcc. ñii di jaay seen yàpp ñi ci des di wax ba xottee ko sama classe gi ay dix millions ay dix millions ay dix millions bis boo demee ci li ngay gaaw a jeex ndax dangaa ngaa hypocrite faaw ma woyal la foo koy jëleeti <laughs> ma bëggee ni yow <laughs> gaaw a jeex saay-saay nga ni ngay noon ngay demee <laughs> ay